ne bekkaay làmb ku ne bekkaay ne sport léegi rek maa ngi waxtaan ak yow ci Bantamba TV nga ni ma ñaari émission yi ñoo ci gën a am doole muy culture ak sport kon foog naa yow bàyyi nga sa bopp xel yàlla nañu dund nag ba nga fekkee lépp mbay lan mooy diggante bekkaay ak làmb ak Bécaye nu mu def ba ah, macha allah créé fi émission bu mag bu naan Bantamba boo xamante ni ay jamono bu Bantamba mësaan a commencé kenn doo gis kenn ci biti ñëpp dañuy daw di seetaani Bantamba. ba léegi sax. waaw def def ba def def li neexoon nit ñi rek. Mhm. nit ñi danay danay wut. Mhm. xam nga boo gisee émission ñëw rek maasee ak nit ña. Mhm. c'est parce que day am lu nit ña soxla. duñ ko gis. dëgg la duñ ko gis duñ ko ba bis ñëw rek. ñu gis xool ci tele bi rek gis benn émission ñu métier. waaw. Ah, sport bu njëkk ci ku nekk yaa ku xel. sport bu njëkk ci ngi woon ci seen xel ñëpp. li tax mu ñëw ñu adopté ko c'est parce que dañ koo moom dañ koo ëmb ñoom ñëpp. turu bantamba bi turu bi turu bi. waaw turu bi nag place la place bantamba. Hmm. place la boo xam ne soose yi. Hmm. fan yi toog ci pinc ma. Hmm. ci suufu garab ga. guy ga guy guy bantamba. am na ñuy wax bantaba bantaba. bantaba bantaba. bantaba la. waaw am na ñuy wax bantamba. e bi nu bëggee amal bantamba tour émission bi. El Hadj Ndiaye émission bi daal kenn du ko jox turu olof kenn du ko jox turu alpulaar. mun hmm? leen ko seetal turu. Mhm. beneen tur séeréer joolaa nangam nangam. soose wala dara soose. waaw moom alpulaar. alpulaar mu effectivement ñëpp olof la ñuy mu ne ñun leen wut leneen. ñun ñu fi ñu toog ñoom ñu woo te bi nekk ci bunt bi. waaw jéeju jéeju. nu waxee làmb ci joolaa jéeju nu leen ah xaw ma nu nuy waxee làmb ci joolaa daal waaye. Kaas hmm. Ziguinchor am na place bu tudd Bantamba. ba mu ne Bantamba rek. laay laay li la mu yi. laay laay li la. pare ala ala moom vigile ba ci waaw waaw waa ji pareegul sax ñëpp Bantamba. laay laay li muy Bantamba et puis tamit ñu liggéey ko nag. ngeen liggéey ko waaw. surtout ndaxte bi ma ñëwee ci 2S. Mhm. Mhm. boobu tuddul 2S. boobu RTS 2 la tudd. ah bon waaw 2S tuddul woon hmm. ñu naan 2 RTS 1 RTS 2. man bi ma fay dem RTS 1 la tudd. mais une semaine lan fa def dama faa dugg rek turu 2S génn. ma maaseek moom nag. mu mhm. doon sama bébé. mu doon sa bébé. ba may ñëw fekk naa fa yeneen émission mm, fekk naa fa ñoom Kebs ñoom Pape Cheikh fekk naa fa émission émission ja musique kii. boobu nga jógee booba laa jógee Walfadjri. d'accord dem fa. Mhm. et ñu jox ma ko ma ni kon nan leen ko def journal rek journal mhm. télévisé. waaw di wax di wane élément di wax di wane élément. wane tuus waxtaan wane bëre. Mhm. waxtaan wane sañse waxtaan mhm. wane image du jour. wax noonu lañ ko def ay rubrique lañ ko def ba mu mhm. jeex. nit ñi nag danoo bëgg xam nga di nga bëgg mbir. te doo xam foo koy jaar. waaw nit ñi nag ban demee ba gis Bantamba. ñu ne laa ñun lii lañ doon wër. lii bii la. bii la dëgg la. te booba bi fi ne RTS la ne waaye. paa ñoo koy animé. ba pare tur bi pertinente. waaw et puis tur bi dal. dal mais xanaa xamoon ne tur dina yóbbu dina dina yóbbu nit. Mhm. fu boo déggee Pelé. Pelé waaw xam ne football kat la. am nga ko déggee. <laughs> nga dégg Messi. nga dégg Messi. Messi wala nga dégg Ronaldo. wala Sadio Mané mii rek. wala Sadio Mané mii dëgg la la ni ko yàlla may. ni ko yàlla may waaw noonu la àdduna bantamba ñëw nag ñëpp bëgg. dëgg la et ma leen ciy defal li leen neex. Hmm. bari na ay rubrique yu nekk ci biir Bantamba ay nit a woo wax ko. du ah. man de ñoo xam ne sañse benn colonel armée moo ma ko jox. ndeysaan sañse. sañse ni ma mais bu njëkkoon lam doon am sañse. Hmm. mais pour que créé ko rubrique bu sañse. bu ma dëgëroon bopp duma ko def. déedéet man mii gañe naa ci benn bés. waaw <laughs> ah, mi ngi noonu. lambu lambu Balla Gaye uh-huh. dama fàtte ak kan. gañe naa ci sañse loo xam ne un mois dañ ko teg. ah mi ngi noonu. Ah, sañse moo mel noonu après nag ñu indiwaat image du jour xam nga ci làmb ji am na yoo xam yaa ngi ci làmb ji waaye yow doo ko gis. effectivement ñun ñoo koy gis. loolu lañuy wax coulisse. ñu dugg ci coulisse yi seet ko def loo xam lu insolite. Mm-hmm. ñu génne koo wane mooy mm-hmm. image di jour ñu seet tamit yan combat gën a weex ñu tudde ko top 5. yooyu et puis ak équipe bi ma ko doon liggéeyal ñoom Babacar Karaajo consort googu affaire bi dal Sénégal ba léegi émission bi ren la def ren la def euh, mais 2005 la woon ah léegi bientôt dix dix neuf ans. dix neuf est l' émission de lutte la plus suivie au Sénégal émission bu def vingt ans presque ba pare mel noonu loolu bëriwul liggéey ba te ba tey jii it yoratuma ko Modou Mbaye yor ko di ci liggéey di continuer